sëriñ mi mu ne kon ñu ngi lay bégee ñu ngi lay ñaanal yàlla ndax sa jàmm nag ñun jàpp nañu ne jàmmi réew mi la lu tax mi bi mu ne ku baax ka sëriñ Abdou radiyallahu taala an daan na faral di wax ne soo duggee ci gaal gi waaye fexeel ba gaal ga mucc rek yow su gaal ga muccee nëbbu jaale ak gaal gaal te jamono bii ñu toll nag gaal ak Sénégal yaa koy dawal nag son excellence sëriñ bi mu ne kon nag ñu ñaanal la mucc loolu dafay tax ñëpp muccaale rek سلمي من كون يدول لي سنت يالا بو باخ سلمي من واخ نك دا جافه نون نك لا يخاف لو مت لا والله نون فال و نكو ني قص ولا كو ني غاني سي دك الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وسلم ما